kon li rubrique looy ndaale ñu waxtaanee wàllum corosol ak bienfait yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk Aïcha ma bàyyi la nga wéyal waxtaan bi. d'accord bu ñu dee wax nag fruits yi nga xamante ni ñoo ëpp meññeenteef daanaka askanu Sénégal dañ koy xaw a sët ndax ñu bëri taamuñu ko taamuñu ko ci jus ñu am na sax ñu ko xamul daanaka duñ koy jëfandikoo. Mm. wala buñ ko xamee itamit danoo dem resto ñu daal leen koo tegal ñu naan ko te duñ xam sax njëriñ nga ca nekk waaye ak bëri yi njëriñ ba ci man mii di wax ak yow sax taamu tàmmuma di di jëfandikoo bu baax a baax li nga xam ne moom moo di corosol waaye bi may def recherche bi njëriñ yi ma ci gis daanaka jéggi na dayoo ba tax ma ne dama leen ciy dégtal tuuti rek corosol nag ñu koy woowee fruit du miracle xam mhm. nga bu ñu nee fruit du miracle dalay dalay dalay jox des fois lem bu ñu nee lem par exemple produit miracle la produit miracle loo xamante ne nii daanaka euh, lan moo tax ñu gën a tàmm sax korosol pour waxtaanee ko tey si bi tey dafa dafa tombeek euh, Sénégal lu métti dal leen muy euh, seul et unique radiothérapie bu ñu amoon mu mu paan te loolu foog naa ne képp ku nga xamante ni rek am nga. ko waajur wala say mbokk am cancer tey mhm. sentir nga ci sa bopp bu baax a baax ndax benn appareil la woon fi pour def chimiothérapie beeg yooyu noonu te foog naa ne loolu bokk na ci li nga xamante ne nii cancer cancer ñi nga xamante ne dañoo am cancer ci leen doon sukk sukkandiku maanaam ngir di ci amee sax yaakaar bu ñu commencé traitement bi euh, grâce appareil boobu noonu ñoom ñu jële ci tan ak jàmm waaye loolu yàlla dafa def ne euh, cancer euh, appareil bi yàqu na te balaa ñu indiwaat ñett ñu wax ci gouvernement bi dina ko intamit na toog juróom benn weer ñooñu nga xam ne commencé woon na seen traitement war a def euh, attaque chimio bi lii di cortisol bokk na ci euh, ferñeent yoo nga xamante ni moo gën a màgg pour jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo amee cancer euh, ci ni muy demee doon na loo fruit boo xam ne dañ ko tuddee ni fruit moom moo nekk fruit boo xamante ni boo ko dee jëfandikoo tout le temps chaque jour ak juwam mën na la moo moo raw mille fois mille fois lañ wax de moo raw mille fois chimio bi ngay def maanaam boo waree def benn yoon chimio tey bu fekkente ni jëf jëfandiku nga corossol une semaine yàlla mën na la def jàmm bu fekkonte ne nii sa durée de vie dafa gàttoon yàlla mën na ko puus ba ba kii mais daal lu ñu mën wax daal ay ay ay ay spécialiste wax ko mu nekk ci université euh, fële nga xam te ne moom moo di États-Unis ñu def ay recherche cancérologue yi foofu noonu lu ñu lu ñu lu ñu prouvé mooy mooy que ni que fruit boobu noonu muy corossolier boo ko dee jëfandikoo ci anam gu mu waree moo raw mille fois benn chimiothérapie kon foog naa ne loolu dañ koy baaxee ñi nga xam ne ñoo amee cancer te jaaxle lool ñiy faral di jëfandikoo li nga xam ne nii moom moo di fruit boobule en attendant appareil yi ñu wax yi daal di mën a ñëw. ñu leen di yóbbu ci yeneen dëkk di leen faji ji ñu dugg nag ci li nga xamante ni moom la jot a moo nekk tamit fruit boo xam ne moo ëpp ndox ci fruit yi. pour ku ko xamul euh, moo nekk fruit boo nga xamante nii bu fekkente ne dugal nga ko sa machine pour broyer ko pour mu nekk ndox mooy ëpp quantité ak ay carotte wala ay ay bu fekkente ne ay pom wala ay banaan wala ay xaal bokk na si boog yi ëpp ndox moom moom mhm. corossol mhm. xam nga xaal sax mën nga ko téye juutal ko nii du du du ko pour wadd mhm. mais bu nekkee corossol moom il suffit nga ubbi ko rek mu commencé tox ko mooy wane ne que euh, élément boo xamante ni essentiel la te composé en eau dafa bari loolu am na tamit vitamine C am vitamine B1 ba B6 am na tamit euh, fibre am na fer am na potassium am na minéral am na minéraux yu yu am solo du sax minéral mais ay minéraux yu am solo moo nekk ci biir am na tamit ay protéines am na calcium am na glucide bu ñu ko dee xayma bokk ci alimentation bokk na ci frie yi gën a complet ci fruits yi bu weesoo loolu itamit ñu daal di wax ni que bu fekkente ne da nga koy jëfandikoo taamu nañu tamit di dindi li nga xam ne moo di xob yu ñuul yi ngeen di gis nii ci image bi mm. xob yu ñuul yi boo fekkente ne xar nga karosol ba pare war nga mën a nag dindi grain yi ci nekk ak yooyu noonu parce que xob bu boobu noonu baaxul ci di ko jëfandikoo rawatina ci wàllu digestion léegi balaa nga ko jëfandikoo quoi que ce boo ko xaree mën nga mën a jël euh, euh, kiiwu karosol bi dindi kii ba pare doo koy mën a jëfandikoo moom tamit la ñuy wax ne moo nekk fruit bu nga xamante ne nii léppam plante utile lañ koy wooyee maanaam dooree ko ci feuille yi ci fruit bi ci fleur bi ci racine bi ba ci tige bi benn boo ci jël rek am na njariñ maanaam ci ji bi boo koy ji ak ay grain ni nga ko buddee njëriñ xob bay naaw noonu am na njëriñ boo ko téyee moom deram rek der bi rek der bi ngeen di gis nii rek am na njariñ ci biir fruit moom kenn waxaale ko ndax neex ga mu neex moom ku ci ne xam na ko ñam ñam nañ ko bu weesoo loolu tamit bokk na ci alimentation yi nga xamante ni boo ko dee jëfandikoo dina raxas sa foie ndax am nañu feebar yoo xamante ni daanaka foie bu tilim moom moo koy moom moo koy kii rawatina nag day day day xaw a yàq tamit jege jege lool tamit euh, wàllu digestion. Mm-hmm. maanaam du ko dalee ci poumon ba ci kër bi te fois moom foog naa ne bu setul rek. daanaka sa organisme ak sa digestion yépp du du normal bokk na ci alimentation bu nga xamante ni moom bokk naa ne directement day dem ci fois bi te da koy raxas ko lu jëm ci wàllu euh, sucre xam ne ne tamit sonal na loolu askan wi rawatina diabétique yi bokk na ci li nga xamante ne nag moom day équilibré bu baax a baax taux de sucre bi nga xamante nii day dem ci sa organisme moom corossol ba tey la ñuy waxtaan euh, bokk na ci garab yi nga xamante ne nii daanaka boo xamee ñi nga xamante ni dañuy nekk nit ñi nga xam dañuy jéeg saari xëm xam nga am na ñoo xam ne ñoom insuffisance rénale insuffisance rénale ñu bëri buñ ko amee dañuy jékki saa di def ay évanouissement dañuy jékki saa di évanouir dañuy jékki saa di évanouir loolu noonu boo ko amee buñ nga def sa jus corossol bu nga xamante ni ni yow da koy tàmm di ko faral di jël boo koy faral di jël tamit ay miir yi bari tamit dina wàññeeku si yow bu baax a baax bu weesoo loolu itamit dañuy wax ni que ni que euh, ay fëyam rek ay fëyam rek daanaka euh, am na solo bu fekkente ne nii euh, feebaru jàngoro yi vertige wala di di di di jéeg sa sa yaram bi di lompoñ ngay sentir fatigue xam nga mel ni asthénie xam nga asthénie tamit moom genre loolu tamit boo ko amee tamit corossol bi tamit ngay jël feuille yi poignée de feuille rek ngay jël nga daal di koy jël infusé ko maanaam comme ni ma koy waxee rek da ngay tàngal xal sa ndox ba mu bax rek nga daal di ko ciy tëmbal boo ko ci tëmbalee quelques minutes ba nga gis ne sentir nga ne vert na nga koy teg boole ko kuddu lem xam nga lem moom waxoon nañ ko fii ay ay ferñeentam ak ay vertu moom daanaka buñ ko wax bu ñu fi jógee mm. boo ko jëlee nga boole ko nga naan ko loolu dina tax tamit mu wàññeeku ay feuilles yi tamit euh, dañu wax ne tamit feuilles yi importance gi mu am moo tax ci diwaanu États-Unis da ngay gis ne ñoom moom tam moom la def pour ataaya xam nga ñun fii dañuy jël euh, ataaya yi yi nga xam ne nii gis nañ ko ci paquet yi di ko jënd ñëw ñëw xool sotti ko ataaya ko mais ñoom feuille feuille carrosselier li mu amee solo moo tax ñoom moom la ñuy jël des fois di ko infuser di ko def tee di ko ataaya xam nga ak seen ak nuñ ko nuñ ko mën a kiwee rek ak luñ ko mën a boole rek mais noonu pour wane rek importance su importance su feuille yi bu weesoo loolu dañuy wax ne corossol am njëriñ gi mu am njëriñ tax ne que même euh, li nga xamante ni moom moo di ñuul yooyu nekk ci biir kii bi te nga koy génn di ko sànni daanaka même boo ko génne di ko sànni sax dafa utile ndax loolee boo ko jëlee nga dëbb ko ba mu mokk bu ko ba mu wow nga dëbb ko ba mu mokk boo ko tëwee ba mu mokk boole ko sa huile bu la neex rek huile boo xam ne sa yaram tàmm na ko daal boo ko defee bu fekkente ne yow da nekk ci li ngay liggéey côté jardin te xam ne am na ay piquement yoo xam ne da lay sonal wala nga dem des fois comme instant bi yooyu ni nu bëree mm-hmm. amuñu seddaay amuñu tàngaay yooyu dañoo fàtte lool sonal nañu lool waaye yooyu mën nga ko jël rek le temps que ngay toog di seetaan télé nga xam ne que instant boobu noonu yooyu dañoo bari te amoo musique tëddoo ci suuf musique mën nga ko jël nga raay ko sa yaram fi nga xamante ni sa yëre yeggu fa gis ne moustique yi dañ lay daw ñi nga xam tamit dañuy liggéey tamit ci mooy jardinier yi ñoom tamit loolu mën nañ koy diw ci seen yaram yi bu ko defee pigment moustique yooyu noonu dina mën a dina mën a wàññeeku bu baax a baax mm. xati xam naa yow loolu dina la xaw a arrangé dangay wax temps yi yooyu dañ laa solo fatouche la lay gën a arrangé <laughs> moustique rek dina ko arrangé bu baax <laughs> ñaari solution solution yi no Pikine amul yow <laughs> Pikine Khadija yooyu dañ dugg Pikine Baye Khadim Khadim maa ngi koy proposé. yooyu kay ñu ngi côté Maristes bi noonu. <laughs> Pikine amul yoo garaaw ñi nga xamante ni am na jàngoro yi hémorragie interne mu doon loo xam ne sonal na loolu tamit askan wi ñoom aussi mën nañ jël ju feuille bi rek di ko def jus feuille bi ngay baxal ba mu bax rek après nga def ko jus saa ñëwee tamit di ko di ko faral di naan tamit dina tax sa hémorragie interne wàññeeku bu weesoo loolu itamit moom dafay xeex li nga xamante ni moom moo di wàllu pression bu amee pression bu bari ñuy def examen xam nga sa xel mi du toog ñi nga xam ne dañu am asthme ñi nga xam ne dañu am problème respiration ñi nga xam ne dañu am bronchite ba ci sax li nga xamante ni moom moo di ñàkkum nelaw gi nga xam ne dafa sonal lool askan temps yi moom xaw ma la la ko wax mu ne la da man pour nelaw damay dem sànq oustaz moom ma koy wax ne moom day day mënul fexe ba ba nelaw day teel a wàcc bëgg reposer wu mais nelaw man ma foog ne jàngoro bi ñëpp la parce que même man mii sax ma wàcc damay toog ba ay 3 heures du matin j'arrive pas à retrouver dafay metti daal man xawma affaire bi lu demee noonu nee nañ tamit euh, bu fekkente ne nii da ngay utiliser juróom benn feuille euh, euh, corossol utiliser ko corossolier bi ngay jël maanaam juróom benn nga bu feuille rek ngay jël boole ko nga daal di ko jël euh, mélange kii ko mm, infusé ko bu fekkente ne tamit mën nga ko infusé mën nga ko baxal mais bu mu doon baxal bu yàgg baxal woon day dem ba ñuul mm. baxal ko tuuti rek nga daal di koy teg chaque jour bu fekkente ne nii yaa ngi añ yaa ngi reer wala yaa ngi ndéeg nga jël ci demi kaasu euh, ataaya nga góox ko ci nga naan loolu tamit dina tax ñi nga xam ne dañu am feebaru dënn day raxas sa dënn ñu am bronchite day kii waaye tamit problème respiration bi nga doon am yëpp day daal di wàññeeku bu weesoo loolu tamit ñi nga xam te ne ñoom ñoo amee diabète xam nga sànq maa ngi koy wax ne jus bi baax ci diabète ndax day équilibré sa sa deret mais ñi amee jabar seen ba xam ne amee nañ jabar rek mën nañ jël tamit juróom-ñaari feuille juróom-ñaari feuille yu euh, corossol yi nga daal di koy baxal soo ko baxalee tamit euh, ba mu ba mu baax nga daal di ko dugal sa frigo saa la neexee rek nga daal di xel li saa booy añ saa booy reer saa booy boo ko defee tamit di nga ci gis tam soobee yàlla bu weesoo loolu tamit ñi nga xam ne dañoo am problème reesal reesal moom daanaka ñëppay am problème am ndax am na aliment aliment yu nga xamante ni dañ koy bëgg di lekk surtout ñu Sénégalais yi na duuf na moom moom moom ñin na duuf na ceeb bi waaw yaa koy mhm. wax du gaaw a rees léegi euh, bu fekkente ne nii am nga problème euh, digestion boobu tamit mën nga jël ver bu saa boo añee ba pare rek wala nga ndékki lu diis rek mën nga ko jël nga daal di teg sa kaasu ataaya nga dëgg si sa ñetti xob ñetti xobu karosolier rek nga bàyyi ko ba mu ba mu gajaf rek nga daal di jël nga guux nga naan ko bu weesoo loolu tamit nee nañu ñi amee feebaru biir bi daw am na ko xamante ne moom biiram day daw rek si plateau bi waaye xam naa ne su ko waxee mu waxati ma sama bopp moo tax damay nopp xam naa ne sama façon wax di nga xam kan la mais ba tey tudd ma ko voilà moom moom feebaru biir buy daw da ko sonal trop trop trop xaw ma bi bu waxee la vendredi mooy sama jour de repos du ko ñëw dimanche <laughs> déjà ñëpp xam nañ kan la. Aïcha ah, kon dafa ñuy faral di am diarrhée chaque semaine mais ça c'est grave <laughs> ñooñu noonu di am di biir buy daw xam nga seen bopp mu ngi ci plateau bi fi mu toll moom ku tontu man xaw ma kan moo tontu. non bul ma suturaal ko en tout cas du man. voilà ma suturaal ko ah. suturaal ko voilà. suturaal ko la mais ko bu euh, nekkee sa xarit la danga koy conseillé. <laughs> <laughs> nee ko yow sama xarit. ay su jaxate nee na biir bët. <laughs> moom ci boppam mu ngi mu ngi joxe solution je pense que <laughs> comme moom ci boppam mooy joxe solution pour biir ko adopté. <laughs> ba moo ko <laughs> man en tout cas ma pose ma vendredi kii rek pour vendredi xam na boppam. Eh, kooku noonu nga xam ne nii moom sa xarit la. dee ko wax mu jël juróom-ñaari xobu. non t'inquiète pas avant ko baaxee nit moom essayé na ko t'inquiète pas pour ça. <laughs> xam nga Adja yow waxoo. xam nga Adja yow waxoo kenn waxul fii. Mhm. Mm, mm, lan moo fi wax jaaxal na ma daal juróom-ñaari. j'ai dafay gën di jeex di euh, vraiment. maintenant euh, kaal kaalaam yi yi mu doon kii sax da ko ëpp léegi. <laughs> mais continuer sax juróom-ñaari xobu juróom-ñaari xobu consolier lay daal di jël. Hmm, euh, def ko ci ci litre do bu fekkente ne nii santé na ne biir bi day waaj a daw rek mu di ko naan bu añee bu reeree bu ndékkee kooku noonu. <laughs> bàyyi biir buy daw. les choses sérieuses commencent par bàyyi biir buy daw. <laughs> fii ci ginnaaw léegi toj biir bi daw rek ñu rey seen bopp <laughs> bu weesoo loolu itamit ñi nga xamante ne nii. daanaka eh, ñoom eh, dañoo dëkk ak ay ñoo xamante ni seen seen seen xel seen xel dañoo dañoo sutante eh, wala ñuy faj ay ñi nga xam ne nii dañoo seen xel dafa dafa sutante daal maanaam ñi nga xamante ni seen xel nekkut ak ñoom àndut ak ñoom. Mhm. ñooñee tamit bu fekkente ne nii ñu ngi leen di traité mën nañ ci boole tamit di utiliser li nga xamante ni moom moo di corossol ndax nii dañu corossol bokk na ci loo xamante ni day wàññi dépression. Mhm. maanaam boo amee problème yu bari sax nga xam ne yow yaa ngi stressé sax. nga jël di ko infuser di ko naan rek dafa baax ñoon dañuy wax ne que bu nekkante ne dañoo nekk ak malade yooyu noonu xam naa ne en ce moment nag jono bu may kii euh, président Assam moom day yëngu bu baax a baax ci wàllu bi euh, nay faral di jël ñetti euh, xobu karasol feuille bi di ko daal di baxal di ko jox ñooñee nga xam ne ñooñu lay faj mooy seen xel sutante bu ñu añee bu ñu reeree bu ñu ndékkee wala lu ko mooy itam ñu koy def chaque jour saa bu ñuy tëdd ñu daal di naan ñu daal ci naan kaas bu weesoo loolu itamit am na xale yoo xamante ne nii dañuy agité mhm. mooy xale yooyu nga xam ne dañuy léegi rek ndeysaan mënoo ci ñoom dara dañuy yuuxu dañuy wex lu ne lu ne lu ne dañ koy def pour rek xale yooyu euh, ñu mën a régler mhm. mais malheureusement pour xale yi régler euh, am nañ ci ñoom tamit ay ay ay juróomi xobu karosolier eh, ngay daal di jël juróomi xob yi nag day am yu wow ak yu tooy maanaam yoo xam ne mm-hmm. wowun ba pare ak yu tooy mm-hmm. nga jël ko nag daal di ko boole ci ndox boo ko defee ñett yu wow ñaar yu tooy voilà wow ñaar yu tooy ko jël mélange nga daal di koy eh, dajale nga daal di ko baxal boo ko baxalee ba mu baax nga daal di ko teg ba mu sedd boo ko tegee ba mu sedd nag nga daal di ko sangee xale bi mm-hmm. dégg nga yéen may dégg. bu baax concentré wu leen ndax sanu sanu tu perturbe. nañ la déggee ëpp na vas-y. xam nga sama xarit nga waaye tu perturbe aujourd'hui dégg nga léegi nag xale boobu nga xamante ni dafa léegi boo ko amee sa kër dangay daal di baxal sa sa sa karosol euh, euh, nu ñu koy waxatee sa feuille karosol bi nga daal di ko teg ba mu sedd xale bi nga di ko sangee boo ko sangee day gis ne wex-wex bi day wàññeeku mm-hmm. bu doon xale bi dafa bëri jooy day mm-hmm. lépp ci ay bien wu karosol mm, la waaye ay ferñeentam waaye itamit li tax ñu koy woy produit miracle mm-hmm. loolu moo tax ñu koy woy tamit fruit miracle boo weesoo loolu am na ñoo xam ne dañoo amee hématurie hématurie xam ngeen mooy lan. mooy ñooñu nga xam ne maara day taal ndeysaan yàlla daa def ne dañuy tuur tuur seen tuur ndox du tuur ndox waaye tuur deret la. maanaam bu ñuy saw saw deret la ñuy saw loolu mooy hématurie léegi nag ñoom bu fekkente ne ñooñu loolu dal na leen mën nañoo jël euh, fruit bi daal di ko euh, mélanger chaque jour saa bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu yeewoo fruit bi rek rek rek rek moom la ñuy jël noonu ñu def ko jus di ko faral di naan bu ñu koy faral di naan di nga gis ne kas deret boobu ñuy saw dina wàññeeku. Mm-hmm. bu weesoo loolu itamit am ngeen lu ngeen ci ajouté en mm-hmm. attendant ma dem ma dem. ñépp nee da ngeen may bàyyi may dem rek man rek may wax du ngeen ma noppal tuuti. li ngay wax du ñu ñu wax ba tey nag si wàllu corossol nee nañ bu fekkente ne da nga am saan maanaam par xam ngeen saan saan moom dafa sonale loolu tamit mën ngay jël euh, xob bi di ko di ko di ko di ko naan. di ko di ko di ko baxal di ko naan même bu fekkente ne tamit noo jël xob bi parce que dafa weex mën nga jël tamit jus bi mais jus bi bu ci def sucre. Mhm. boo ko defee noonu rek mën nga koo naan. di tam voilà dina wàññi saan bu baax a baax ndax saan moom foog naa ne surtout jigéen ñi léegi moom. saan moom ñëpp la sonal moom ndax li ñuy lekk sucre yi yeeg yooyu noonu yow surtout yow. te yaa ngi chocolat. dangaa chocolat wala chocolat. déedéet dangaa chocolat rek na ma bàyyi chocolat yow boo ñëwee ni ma indil bàyyi chocolat. man sax euh, léegi yàq nga ma keroog Moustapha Diop nee na ma chocolat na ci kër gi ba paquet chocolat yi te man yaa ma jàngal chocolat. li may lekk chocolat dafa ëpp la parce que yow tuuti tout ce qui est nuisible sax di ko dégg nga léegi nag bu weesoo loolu itamit ñu ngi wax ni que xam nga tubaab dafa wax lu am solo tout texte inuisible buñ ne rek karasol day faj day faj day faj te ngeen jàpp ca rek saa bu ngeen xëyee naan di ko def <laughs> wóoru Faati Gay sama cousine ba ca kër ga ba ma nee carbonate day bamati <laughs> di wër na yàlla Faati sonal na ma lu ma kii nag carbonate muñ ko mu ne carbonate <laughs> ma ne ko Faati def ci nànk carbonate gi danga koy naan di ko borosoo carbonate nga def ci sa tànk yi carbonate dëgg la conseil naa la may def ci xam naa bu bu ci bii dina bàyyi dina bàyyi euh, carbonate bi tuuti. dem ñëw ci karasol bi voilà. nee nañ tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy jigéen ñu wéru ñi maanaam ñi ëmb ñi ñi wan lor ñi ak ñi nàmpal aussi euh, euh, nañu ko li nga xamante ni moom moo di karasol. bu bu bari bu ñu ko jëfandikoo voilà voilà bu ñu ko mënee bañ a def sax moom moo gën bu weesoo loolu itamit nee nañ bu fekkente ne nii bari na ci sa yaram dalay indil seere par exemple ñi nga xam ne seen biir da doon daw ñu déggal leen ko ñu topp cay naan topp cay naan te biir ba daw ba arrêté na mën nga dem ba mujj si seere lay indi te seere nag mhm. moo gën a bon ko conséquence que jaare ndax mhm. dëgg yàlla seere moo gën a métti parce que seere bu bëri sax indi indi hémorroïde mhm. donc seere moom c'est autre chose donc lépp pour éviter leen pour ñu bañ cee ëppal daal daanaka ñu bañ cee ëpp ñi nga xamante ni dañoo am problème mu xol aussi nañuy éviter tamit di di di di di naan karosol même si que jus bi bu fekkente ne boo ko defee day niroog meew mais nag euh, pas pour les euh, ñi nga xam ne dañu am problème mu kër nay éviter di ko naan niroog nag meew trop mais meew daal foog naa ne moo gën a baax ci xol que que karosol Euh, comme ni ma waxee woon sànq rek daanaka ci wàllu cancer gi la ñuy des ba tey di ñaaxaat bu baax a baax suñu mbokk yi nga xam ne dañoo amee jàngoroy cancer ñu leen di mastawu bu baax a baax waaye ñi dëkk ak ñoom te mun leen toppatoo woon nañu def traitement yi ca hôpital ba ñenn ñi euh, déjà dagg nañ seen cër yi ba pare mu desoon chimio bi rek malheureusement appareil bi panne ñu ngi leen di mastawu bu baax a baax ñoom itamit nañ jëfandikoo li nga xam ne moom moo di corossol